assemblée nationale lañ jógee presse moo woote woon teg li nga xam te ne mooy mise 3 millions francs CFA 3 millions 600 francs moo ko jël moo daan nga xam te ne mooy général Malika moom fi nga xam kër la da guerre ñi war a ñëw xoolal leen fi am ka war a bëreel nag mooy borom tàcci nga borom dof du wér kon dañuy avance tuuti rek xool mbër mi fi nekk Mbaye Tine Junior la daal di koy nuyu waxtaan ak moom Mbaye nuyu naa la. maa lay fay Ndeye Maguette. nga nekk yàlla rek. ndax ngeen di waajalee seen combat bi. ñun pare nañ barke Serigne ma day Mbacke dem ba combat bi taxaw ba léegi ñun ak mbër mi fu ne dem nañ fa si entraînement fu ne dugg nañ fu ne si kombaa bi day Mbacke combat bi suñu bakkan lañ ci teg xam la ndax xam la day Mbacke bërëb daa war a freiné fii géejawaay fii. Eumeu Sène neen daam lu ko naqari ci naqar la toog te ci yéen la koy fajee. Eumeu Sène day delluwaat ci defet bi incha allahu rabi suba suba xam nga xam nga di nga ñëw fi ñu jubilee. ñoo ngi nii 0h41 une heure moins du matin maa ngi fii. Eumeu Sène suba xoola fii laa la ko waxee Eumeu Sène boo taxawee ma duma la boo bëree ma daan la maa la gën a neex xale maa la bu doole maa la mën isa may dégg combat bi nag barki Serigne Bamba billaay wala beneen la dëgër la ñuy gis incha rabbi suba. ñee la dëgër arrière kat la du avancer du attaquer lan ngeen koo yabee suba. lamb ji moo dàq bëri la man maa la ko man Mbaye Tine làmb ji moo dàq bëri seede yàlla loo mën mën bëre billaa walaay doo ko daan ci bëre waaw te incha rabi maa ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla may ndam da dëggee numéro 2 maa ngi koy ñaanal booy ndey ma ko maa bëgg mooy ubbi baal bi de koy ñaanal suba yal na ko yàlla may ndam si kàttanu borom bi waaw yal na ko si kaw Eumeu Sène mu daan ko jël bu amul benn wérante. soo ko doon soo ko tey nga ne ci ginnaawam cinq minutes avant combat bi loo koy conseillé mu bëree ko. man li ma koy conseillé mooy ba mu ne prix mu dox si kaw bërde bi moo mën moo doole moo gën ne xale. loo ko yónnee xeex wala bëre. noonu laa mun laaj rek xam bu dee bëre Eumeu Sène dàqu bëre xam la xam la waaw xam te bu dee xeex ñun ñoo ko dàq. Mbaye yaakaar nga ne Lac de Guiers ñeme na xeex ak nga xam ne ni mooy Eumeu Sène. ah ah waaw bañ ñeme yow Lac de Guiers numéro ngay wax de kooku làmb ji moo dàq xeex kooku làmb ji moo ko dàq xeex barki Serigne Bamba te incha allahu bu suba bu suba. incha bu suba waa Sénégal lañ xam ne xam nga Lac de Guiers 2 mi ak Lac de Guiers bu woon bokkul ça fait deux combat bi gars dañ koy yàpp barki Serigne Bamba. loolu leer nag ay kàddu Mbaye Tine la ko Forza def. ñu ngi sant alhamdulilah. ndax ngeen di waajalee combat bi. waaw indi bëre rek. waaw fas yéene am ndam quoi def nañ lu ñu war a def lépp préparé nañ tout waaw lépp supporter nag pare nañ pour jël ndam li quoi waaw si barke Seydina Mouhamed ñu ñaan yàlla may ñu ndam waaw si barke Sëñ Babacar si. am seen nag xam ne. victoire ba la ko may ba la passé ak ak bii nii bokkul te loolu du victoire nag mbër mbër mësu koo daan ba toog si kawam. Forza wax loolu de dañuy avancer rek xool mafia bi zéro naa leen. waaw ñun lay fay sonn si. lan ngeen di wax Eumeu Sène. Eumeu Sène amuñu luñ koy wax Eumeu Sène xam luñ koy wax su bëree daanu bu xeexee daanu lu mu def daanu. xam na loolu sax moom moo leen gën xam loolu su bëree day bu xeexee daanu lu def na bàyyi di wax naan dafa daan la dageer deuxième combat bi. bi foofu jël amu fa. combat bi ñaari machine nii la barki Serigne Bamba Mbacke amul jël. suba lay suba la jël bi di leer. suba dañuy daanaka pàccal bi moom. man man dem fee daal cay Leewtoo salaamaaleykum. une heure moins. waaw la ngeen di waajal seen combat. ah combat bi xanaa daan rek. daan barki sëñ Fallou. wallaahi wallaahi taala. loolu am bëggee mu daane ko door mu daan wala bëre. Eh, door mu wàcce. Eh, eh, ñu ngi lay fay. doon di wax la dëgër de. la dëgër de ñu ngi koy ñaan instant daan nañ ba pare daal maanaam. loolu am bëggee mu bëree ko. non da ngay daan ko ñu dem. te Eumeu Sène bi nga tooyee dinañ xam ne kaanu du singom. ñu ngi lay fay. naka ngeen di waajale seen combat. yéen na ngeen ñëw fii dèjà am leen dërëgu leen. moo tax fu mu nekk xam naa li ngeen lu métti rek ngeen ñuy laaj. ngeen màndi noonu la waaw di ñaan rek yàlla may ñu ndam incha allah. war a bëri suba lan ngeen ko kenn du ko yeb yàgg na si làmb kenn du ko yeb xam ne li ko war suba te dina ko def incha allah kan Eumeu Sène na muñ rek Eumeu na muñ rek incha na muñ rek ama seen bu subaa day muñ incha allah. incha allah. kon 1-1 lay nekk wala 2-0. lay nekk suba allah. ah yàlla baax na ba bis ba rek bis ba dina xam ni lépp dëgg la. waalo bi neen nga wax sa tur sant. ah man maa ngi tudd Modou. <laughs> waaw. yéen tudd la xale bi man Maodo Malick si tudd. loolu dafa neex suñu. ah man nee na doyalul. gis naa fi les photos El Hadj Diop borom xaas ma borom xaas daa fi gis otoom kër la da guerre de. ankañ rungaas bi rungaas bi waaw salaamaaleykum mbooloo ñu lay nuyu ku nekk sa tur sa sant ah, ah, ah. ndax combat bii la da guerre ñoo jaral ndax Eumeu Sène yaa ngi doon am combat nag Lac de Guiers nee na xale boo def def loolu nag Lac de Guiers la nga daanu joxal kaw mu wax sama doom yaay asalaamaaleykum ku sa yaay ñaaw waxa xaar baak sëñ Touba firi rek bàcc eh léppay baax yaa ma gën a yow la rek eh, bi pare nañ de dinañ may ñu ndam rek suba incha allah ngeen yebe Eumeu euh, gën xam combat bi fu mu ko mën a yóbbu ak fu mu ko mën a lu mu ko mën a yàqal ak lu mu si mën a am waaw sunu grand la nag ñoo bokk dëgg quoi waaw dañ koy ñaanal rek ndam quoi yàlla defal ko jàmm comme ni nga ko waajalee ba ba léegi gars yi nekk si mbégte di ko yëg dañuy ñaan yàlla bu subaa heure bi fii gën a neex rek loolu laa koy ñaanal quoi sama waay la ko waa bilaay sama xol ko def noonu la demee dégg ko moom loolu la ñaan te loolu moo nekk ci xolam mañ jëlal rungaas bi dañu daal di daw dem fee Jibizi. Mamoy. Jibizi. Victoire on Ndalong. Ndalong. Victoire on Ndalong. Ndalong. Lac de Guiers ba Boy Ndiro Kelele. Force. Ñaala Sonta. Ba Boy Ndiro Kelele. Force. firo kelale dalam sode firo le min dali bar force mba kala jani nar ki dala ñun ko mba ñama nga ko mo ko mba dori de ñun ko mba mi gay de ñim ngambandi ya balale ngambandi ya balale ko bo billahi nadi arama masatallahi billahi wala ñun doom casamance lañ ade amere casamance der boro woro pakaw iga pakaw moy pakaw pakaw pakaw manga usi bari ka boy ko naga no no pakaw nindele ñimuna nga kele ninga mim ni la fe mina symbolique la par force. Ah. waaw. tey man. ginnaaw bañ jógee Géejawaay Kër la da guerre ñu ngi fii nii Mbaaw une heure vingt sept du matin yaa ngi dégg ñu fekk fii si ñi nga xam ne ñooy supporteru Eumeu Sène nuyu naa la. fay naa la soxna si. nga ne fan nga jóge Gambie. rien que pour Eumeu Sène. Eumeu Sène rek. loo ko yebee. non Eumeu Sène moom amul dara luñ ko yebee nam daan def rek nag ko defaat parce que indil nañu lu ne. muy bërewaat ak nga xam ne mooy lan ngeen bëgg dóor mu daanu wala bëre ba mu jeex. Eumeu Sène Lac de Guiers du combat Eumeu Sène daanoon na fi Lac de Guiers ndam rek. dañoo daqaaru saf ñaari yoon de lan nga gis ci loolu. loolu wax la loolu wax Lac de rek laa ko jàppee ñu ngi ñaanal Eumeu seen daal yal na ko yàlla may ndam bu sedd guy ci barke Seydina <laughs> man yaama. yaama la dañuy jàll rek ataaya bi premier lañ toll wala deuxième. la. waaw. nuyu naa la tur bi naka la. man Seydou. Seydou foo jógee. Gambie yaa. ngeen ñëw fi gil nga xam ne mooy combat Eumeu Sène ak Lac de Guiers ngeen di wax Lac de Guiers. Ah, bi moom kay no I must thank the Senegalese force. am very happy because of Omar Sen moo tax ñëw fii small of this Dubai I'm very happy today so still I'm I just want Omar Sen to take force yeah every year let him win the combats you know I'm very happy today especially guys also are here today thank you very much